Pape Thialis Faye ak Leewtoo production ñoom tamit taxawal nañu combat Boy Niang ak Tapha Tine mm-hmm. boo xam ne nit ñi dañ ko doon demandé di ko laaj Tapha Tine mm-hmm. Boy Niang Tapha Tine la war a bëreel mm-hmm. warata bëreeg ba léegi Tapha Tine la war a bëreel ñii ne ba faar combat ba taxaw combat boobu tamit loo ma si mën a wax Boy Niang Tapha Tine ndax defe naa xam nga leen waaw lamb moom naa la wax yëkkatil micro bi tuuti waaw euh, am na combat yoo xam ne bu la yàlla mayee chance nga tëgg ko mm. euh, événement ko a rëy parce que ku mel ni Tapha Tine mm. lamb tey ñëpp toog ni mbër yi dañ ko ragal tey boo toogoo yaa ngi ay at yaa ngi dégg ñu ne Tapha moo gën a naqaree utal adversaire <laughs> waaw loolu boo toogee ñu ne Tapha Tine mbër yi ñemewuñu ko mhm. parce que day dóor te njool la tey booy ñaa tey ku wax riiru làmb mhm. te boole woo ci Boy Niang dafa mel ni waxoo làmb riir riiru làmb mhm. booy Niang tey boo amee combat euh, boo émission rajo wala télé boo déglu da ngay kontaan parce que da ngay xam ne booy Niang moo aye tey mun naa la wax nii Euh, xoromu làmb am na ko. Boy Niang am na euh, ginnaawu làmb bu dëgër li ñuy li tax ñu naan mbër. Hmm. ba pare am na am na mbër na bëre bi am na waane bi ba pare am na public bi. Hmm. te tey booy Niang ak Tapha mooy deuxième examen wu Boy Niang. dafa njëkk a bëree. sa micro bal la njëkk a bëree at la de guerre daa ni ba demee neexul kenn. Hmm. mais wax dëgg yàlla. Euh, wane na njàmbaar la de jël na ndam li mhm. donc mu war a jëlaat beneen VIP muy tafaatin mhm. mun naa wax ni combat bu neex a neex la gi nga combat bi taxaw nii yëpp mhm. combat boobu benn combat du ko ci dàq tafaatin booy ñaa tafaatin am lu mu bëgg wane booy ñaa dafa am lu mu bëgg wane parce que tey boo xoolee ñu ngi doon wax combat booy Balla Gaye booy ñaa combat bi kenn xamul lu ko yàq Mhm. parce que moom la amateur yi doon xaar. Mhm. mais combat bi fël foo xam ne kenn xalaatul woon ni. booy ñaa tafaate nit ñi sax xalaatuñ ko woon. dañu jékki-jékki rek mel ni làmm ni doomu aadama yëpp. tafaatin booy ñaa tafaatin booy ñaa ba yàlla def. combat ba ñu ne taxaw na. kon combat la boo xam ne amul benn combat bu ko gën a rëy ci senegal mhm. te amul benn combat nag bu koy dàq ci bëre. at ci bës. mën nga wax loo xam ne. mooy loolu combat boo xam ne ñoom ñaar ku nekk mën nga daan sa morom. dama déglu Jibril Kandji ci côté xeex ñu laaj ko mu ne Tapha Tine Boy Niang moo ko dàq xeex parce que ne Tapha Tine rek la man waaw parce que Tapha Tine bon boo xoolee kombaam yëpp gisuñu ko mu xeex corps à ci kaw mu xeex taxaw jam arrêt dóor la gauche droite ngeen jaxasoo déedéet kenn gisugu ko. Hmm. Tapha Tine ba muy ba muy bëre bu njëkk amoon na arrêt bu jub. boo xam ne da daa indi saa yu bëre. Hmm. dañ daa moytu sax dañ daan moytul arrêt Tapha Tine. Hmm. parce que arrêt bi dafa jub. Mm-hmm. mais dañ jékki-jékki quelque temps ñu gis mu bàyyi ko te ba mu bëreeg bombardier corps bi la gën a privilégié donc mais mënuñu wax ni Tapha Tine mënul xeex. Mm-hmm. mais Boy Niang ku ko xool xeex bi muy xeex xeex bu xeexu xeex xeex bu classique la xeex bu tegu ci yoon la day li muy def da koy xool te boo juumee ci xeex mu mu mu mu njëkk la jàpp te bu la jàppee daan la. Mm-hmm. te Boy Niang ku mu mënul daan ci làmb amul. xeetu bëre bi muy bëre moo tax. xeetu bëri bi muy bëre moo tax xeetu bëri bi muy bëre moo tax mm-hmm. moo tax Tapha damay ragal sax booy ñaa àgg ko fu sori àgg ko fu sori àgg ko fu sore sori mm-hmm. teel ko àgg fu sori dama koy ragal loolu ci combat bi mm-hmm. leneen tamit dama koy ragal ci kombaa bi booy ñaa ñëw di moytu ku ñëw di moytu ku moytu ku ñu naan ko kii dafa mën a xeex dafa nii dafa naa mu ñëw ci làmb ji du suuraal ay ku parce que souvent am na mbëri mbëri yu mag yi souvent loolu da di dal ñëw ba ci làmb ji am lu ndaw lu ñuy sóor kii dafa mën a xeex wala dafa bu mu sóor dara Boy ñaa warut a sóor dara. warul sóor dara xale la Pikine na ngi ci ginnaawam làmb jox na ko nopp tafaatin nag moom champion boo xam ne ku ko bëgg daan di nga encaissé. ah song ko ñeme ko daan ko. Hmm. Boy Niang loo koy moytuloo ci Tapha Tine. mu moytu kor ba rek lu Sénégalais yëpp di wax na moytu ñu kor ko muy bëre hmm. benn bennal. wala di bëre ay jàppantu benn bennal wala du yóotu loo xam ne ñorul. di yootu lépp lu muy def Boy Niang lépp lu muy def ci combat boobu. Hmm. dafa war a gaaw te dafa war a précis. Tapha loo koy moytuloo moom. Tapha li ma koy moytuloo mu am excès de confiance yaakaar ni gabareem ak diisaayam booy bi mënu ko yëngal. Hmm. na génnee loolu ci xolam. Hmm. génnee loolu ci xelam entraîné ji dëggantaan. jël booy bi au sérieux def ci fulla ak fayda. def ci fulla ak fayda. Garga Mbossé Sa Thiès. <laughs> combat bu yéeme la. Uh-huh. Garga mboose Sa Thiès la boo xam ne wax dëgg yàlla ku xool ñoom ñaar seeni ñaari komba yi ñu mujje uh-huh. eh, defe naa ni Garga combat yi mujjee dafa am ndam. Uh-huh. Eh, Sa Thiès combat yi mujjee dafa am defet kon mun naa wax ni gaynde bu gaañu la. at eh, segg boo xam ne moom daa am ay seelam ba am ay revitaay. ba bàyyam ay ravitaillement denc. Mhm. donc Sa nekk na mbër boo xam ne il est imprévisible benn mbër munu ko calculer. Mhm. saa yu daanoo erreur a ko daan. saa yu daanoo. Mhm. erreur a ko daan excès de confiance wala ñëw def lu mu xamul. moo koy daan mais mbër kaamin la. mbër kaamin la moom mbër kaamin la. mun naa wax ni bokk na ci ëllëg ci xale yi nga xam ne yaakaar nañ ñu. dinañ téye ji làmb ji. Ah, Garga Mbossé nag moom outsider la boo xam ne. saa yu amee combat ñu ne ah diwu ko mën parce que dafa nekk mbër boo xam ne wanewul dara. Garga amul dara lu muy wane ni moom la mëne. maanaam day nëbbatu quoi. day nëbbatu amul li looy taxaw ne Garga lii la mën wala lee la mën te su loo ko ci fekk si mu bëre. mu bëre ak loo ko indil mu mu fekk si la ci bëre ak yow. Mhm. mbër bu sotti la. Mhm. mais da koo wanewul. moo tax combat la boo xam ne Sa bu naagoo daanu mhm. garga mhm. bu yaakaar ni moo mën Sa tamit daanu bu yaakaar na moo mën daanu waaw mhm. ku ku yaakaar ne yaa mën ci combat bi daanu mais daal combat bu explosif la combat bu neex la te combat buy neex amateur yi la jour boobu parce que Sa moom ku ko xam-xam ni combat am wax dëgg yàlla bu arbitre sifflé dina bëre te garga ku ko woo ci bëre mu fekk ci la coow rëg-rëg kii yaa ngi koy dégg ak guy guy gi maa ngi koy dégg waaw Reug Reug Gouye Gui combat la hmm. mais combat la boo xam ne wax dëgg yàlla ah, ku xam làmb xam Reug Reug xam Gouye Gui ah, wax dëgg yàlla boo maanuwul sax boo maanuwul rek mun nga wax kuy daan boo maanduwul boo maanduwul hmm. mun nga wax ka cay daan yow yow da nga xam kii daan ah mais loolu ñëpp xam nañ ko kan la kuy daan ah loolu kañ soxlawul ñu ah nag da nga ma naan kuy daan Reug Reug Gouye Gui ko wax loolu ah déet ne boo maanduwul ku maanuwul waaw mun na la ne mooy daan daa man Gouye Gui waxuma ba léegi rëg-rëg moo mën guy gi daa mën rëg-rëg man ba léegi waxuma ni rëg-rëg moom euh, kon guy gi moo mën rëg-rëg waxuma ko de ah déet mais la ne dama la ne bala li nga wax dafa da nga ne commande nan nga wax kii daan ñaari mbër di bëre arbitre suuf léegi xam làmb dëggantaan waaw ku xam làmb dëggantaan laa la wax su maanuwul waaw mun na la ne diw mooy daan mais yow mënoo ne yow yow du ma ko wax sama yoon nekku ci damay analyser rek ñoom ñaar kan mooy favori. ñoom ñaar guy gi ah. mooy favori. ñaata pour cent. ba bëriwul de. parce que hmm. moo ko jiitu ci làmb jiitu ko ci bëri dóor mais euh, mun naa wax ni bëriwul daal parce que sawaay li kii di def ci làmb ji kee mi ngi koy def ci bëri simple bi donc kii ko champion bu confirmé la ci bëri dóor kee champion bu confirmé la ci lutte olympique. Hmm. donc euh, ku dàq bëri. ku dàq bëre. waaw ba loolu boo ma ko laajee yaa ma ko gën a xam. xaw Balla bul ma man man man rëg rëg dàq bëre guy gi. fuuf foo teg loolu. parce que ku nekk boo seetaanee seen bëre ku nekk di nga xam ni kat kii benn ñaar ñetti bëre la kii mbër la. guy gi ñaata bëre la pour yow. ñaar ñetti bëre. ko mooy yan ak yan limbal ma ko. sempi. waaw kal. waaw at nu mu tudd sax. Euh, faq faqat suqar bi. Ah. ñetti loolu nga yaakaar mënut a ub ñett ñett yooyu nga wax mën na ub làmb de Balla. ñaari kele rek ub na lam guy gi daan na fi mbër yu mag de. déggoo ñaari kele kese ub na lam guy gi champion la guy gi kenn mënu ko génnee ci làmb champion la. yow kay boo ne boo nee rëg-rëg a dàq bëri de mooy ça veut dire que kon da nga na su ma la déggee est-ce que du rëg-rëg a wax ne mooy daan. Sénégal ñëpp xam nañ ne rëg Sénégal yëpp xam nañ ko. Sénégal ñëpp xam wala. mais lamb nag wala loolu mbaal li nga wax ni. guy gi guy gi gars yi yàgg nañ koo séentu ci fële mu génn fa ca des de. ci logique ci logique. Hmm. ci kayit par exemple bu ñuy wax ci papier. waaw bu ñu doon xool ci papier. waaw guy euh, rëg-rëg moo mun guy gi. mais tàkkusaanu làmb ak géewu làmb. leneen xanaa du papier arène guy gi kat mbër yi mu daan ci làmb ji bëri nañ. li mu li mu def ak expérience bi mu am. dëgg la jiitu rëg-rëg ci ci ci ci làmb ji. dëgg la nga bëgg ko yombalale noonu. mais est-ce que ñi rëg-rëg daan yëpp guy gi mën na leen daan. ñan la daan ñan la fit gi giri deux ay Jordan ak ñooñu. Jordan. waaw giri deux. waaw xam nga yow ñooñu nga lim. waaw non waaw parce que non mooy combat yu mujj rek laa la wax quoi. ay Balla xam nga est-ce que compétition ak arène benn la. mais li leen wutalee bëriwul. Balla est-ce que xam guy gi mas nañ ko convoqué équipe nationale mas nañ ko yóbbu INSEPS de Thiès. pour compétition équipe nationale. waaw dégg naa lekk gu bëree ko fa jëlee ci li ma dégg dañ leen a lekk loolu yem moom xam nga ko rek mu lekk ba suur. non guy gi. guy gi mënu déggoo champion mënu ma ko weddi. champion la man dama gëm champion guy gi mais tamit làmb gis nga boo ciy wax. Hmm. Euh, da nga ciy wax yow li nga gëm ak li nga xalaat. li nga xalaat. man li ma xalaat mooy. waaw guy gi champion la. mais ci xeetu bëre. Hmm. yi rëg-rëg di bëre. Hmm. ci xe yooyu arrangé guy gi. arrangé wul guy gi guy gi. guy rëg-rëg yan xeetu bëre lay bëre. moom laa lay wax xeetu bëre bi muy bëre. li guy gi mën du ko mën day jàppanteeg moom ci ngemb. guy gi mënul sempi rëg-rëg. mënu ko caaxa caxabal. ah guy gi nee na bu arbitre mu mu sem mu sem. loolu lu mu gëm la lu mu gëm la te mun na war na war na mun a nekk lu mu gëm la mais man li ma gëm laay wax ak li ma xam ci sport. pour yow guy gi mën da sempi Reug Reug. xalaatuma ko sax. Hmm. xalaatuma ko sax côté bagaar ñoom ñaar kon ku ci xanaa comme joxoo guy gi bëre xanaa am na bagaar. guy gi mën na xeex mais xeex bu bu bu bu tasaaroo lay xeex. kon kay mën ta xeex boo nee xeex bu tasaaroo kay mooy lu. lu tasaaroo moom xeex bu tasaaroo lay xeex parce que dóor na fi ay nit ñu daanu. waaw yëkkati yëkkatil micro bi xeex bu tasaaroo <laughs> tasaaroo kat moom daa wóorut ndax lu tasaaroo daal di néew doole waaw lu tasaaroo néew doole waaw mais euh, rëg-rëg seetaan naa ko mu def gauche droite mais xaw ma ndax lu mu mën la hmm. wala luñ ko jàngal la mais hmm. bu fekkee ni loolu lu mu mën la hmm. mën na ci sori trop ci làmb mën na cee sori mën na cee sori loolu léegi fi ñuy jeexale Siteu jël naa ko fan yële passé dégg nga la mu wax waa jàpp waa seen yéen ñi nga xam ne parce que a Lamine ku ne xam ne waa ex waa ex arena ñoo ko boole ak ki nga xam ne mooy Franc yi na yor Franc. Mhm. Papa Sow Siteu. Mhm. kon jàmm gën parcelle mhm. Lamsar jàmbaar wrestling academy. est-ce déglu ma la wax. maa nag moom nee moom ndaama ay ndaama ngeen. <laughs> seeni mbir moom jafewul ci ñoom maama day daan Papa Sow waxaale wuñ ko. macha allah loolu moom Siteu wax na ko. waaw waaw moom bu waxee loolu xëy na <laughs> star la quoi. déet <laughs> moom mun ah, est-ce que loolu mu waxee dëgg. mais naa la wax dara am na komba boo xam ne. moom Siteu. dafa naa ne bu bu si jógee bu fi jógee fa lay jàngiwaat lu bari ci làmb. yéen ñi ngeen jàng lu ragal naa loolu man. Ah, waaw ragal naa loolu laa wax. mu ngeen jàng mu jàngiwaat bëri. bu fi jógee dem jàngiwaat lu bëri ci làmb. c'est ay karaka ko yor de. ay borom xam-xam yu. mag a mag a mag Aline Diop. non déggoo ma ay borom écurie Lamsaar. waaw kenn dootu ko présenté ci làmb.